bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashraf al anbiyaai wal mursalin sayidina muhammadin al makin wa ala alihi wa sahbihi ajmain asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñi ngi ziyaar mbokk yi fi teew yépp xam naa la antara waxoon rek hal gaadara shuaraaw min mutaraddimin am hal arafta daara bada tawahumi wax sa ginnaaw du yomb waaye ñi ngi ñëw fii tey jóge New York ca kër sëriñ Touba ànd ak délégation bi nga xamante ni Serigne Abdou Gueye moo ko jiite ak Serigne Fallou Diakhoumpa mi nga xam ne président Mika ak euh, mbooleem waa daayira Mame jaara ci njiital soxna Momi seen ak soxna Mère Sène Ndigal ñu ñëw fi ci délégation boobu te bu sañoon sax ñooy feesal fii ndax sa yittewoo diine waaye sa yittewoo këri diine yi te ku teew fii xam ko ndax gis nañ fi ñëpp di nuyu shérif bu baax ndax mooy suñu kilifa ñun ñëpp ndax suñu kilifa ñoo wax ne fu ngeen gis deret yonente bi ngeen ko jiital ci lépp kon ñu ngi koy nuyu bu baax di ko ziar waaye Serigne Mountakha di la encouragé bu baax a baax ci liggéey bu mag bi nga fi def man ren la fi sama euh, first time ma fi ñëw waaye gis naa fi lu lu ma yéem loo xam te ni liggéey suñu borom la waaye nag ñi ciy jàpp yi nañ dalal seen xel bu baax ndax benn borom xam-xam bu mag day wax ni suñ boroom li muy folli ci alquran muy nasx te muy wax naa maanaan sax min ayatin aw nunsiha nati bi xayrin minha aw misliha euh, boo duggee domaine bu nekk suñ boroom folli na fa aaya yu ci bëree bëri ci euh, buntu talaax buntu nikaax buntu zina waaye ci buntu infaax moom mosu faa folli bu buntu dundal ci yoonu yàlla ak tabax mosu faa folli yonente bi alayhi salaatu wasalaam bi demee madina lan njëkk def mooy woote ci tabax jumaa moom ci boppam muy jël ci mool yi di aj ak xobi tàndarma yi saxaaba yi dem banaan la in qaadna wa nabiyu yamalu fa daka minna al amalul mudallalu suñ toogee bàyyi yonente bi muy liggéey ñun kon duñ ay gor kon moo tax liggéey bii am na solo lool xam naa mi ngi tooñ sëñ mi ngi tooñ euh, kii ci sañse waaye moom it dafa man lool léeg-léeg dama bëgg a roy waaye suñu yëpp duggee du ma ci bàyyi daan ma faw nga sol dara waaye bu ma seyoon nii la solo ndax mooy solo mi borom xam-xam fii daal liggéey bi am na soo lool ala kulli xaal ñu ciy sant bu baax a baax xanaa fi ñuy waxee rek mooy jàkk am na solo lool waaye li ci ëpp solo mooy ñam bi koy dundal ndax masjid la tudd masjid mooy sujjootukaay sujjootukaay li tax suñu borom tànn baatu masjid tànnut mën naa wax markax mën naa wax markax rukkoowukaay moo naa wax majlis toowukaay wala maqaad waaye masjid la tànn muy sujjoot mooy teg sa juróom-ñaari cër yi suuf li tax mu tànn loolu mooy yàlla bu fekkoon day ñëw fenn di am ñu muy seet si ci jàkkale leen di recevoir moo tax euh, suñu borom subhanahu wa taala wax ne innama ya'muru masajidallahi ñi mën a dundal jàkkay suñu borom mooy ñi nga xam seen pas-pas wér na kon ku pas-pasam wérut mun a dundal jàkka kon jàkka ji am na solo waaye li ci ëpp solo mooy di koy dundal te fii mi ngi dund moo tax masjid bi mu tànn muy sujootukaay euh, te xamees na ni warka'u ma'a raaki'iin a it wa aqimu salaata wa aatu zaka wa qumu lillahi qaanitiin waaye mu tànn nag baatu sujjóot li tax mu tànn ko mooy yonente bi daa wax ni fi jàmm bi gën a jege suñu boroom mooy buy sujjóot moo tax bu ngeen di sujjóot dee leen bari lu ngeen di ñaan ndax lu ngeen ci ñaan bu nangu la ko waral mooy jaam bi day sujjóot teg juróom-ñaari cëram juutu yaakaar naa suñu borom rek lañ mën a juutoo ba pare bi ci am ndam te doo sa ginnaaw doo ci am kersa loolu yàlla rek moo moo man loolu moo tax am na solo kon li koy dundal am na ci solo dañuy wax rek ni moom góor ga nga xam te nii doom ji dafa jàng lool ba ah, ba sori ci alliwo yi bi jàngee ba sori ci alliwo yi su ñëwee ci biir mag ñi di xutba jaaxal mag ñi lool ngir xutba yu neex am bis nag comme baay ji jàngut soriwut mag ñi ni ko fokk nga indi sa baay mu jiite ci jumaa ji mu dem kër ga daal ko bàyyi mbir am na de mu ko lan la mu ko ah nee nañ jiite ajjuma bii di ñëw bàyyi ji ne ko xay xay xam na tey di xam naa saalum saalum la <laughs> euh, mu ni ko xay xam na tey di mu ni ko waaye daal li mooy comme Fatiha moom xam naa ni mokkal nga ko yomb na boo jàngee faat yi ba pare rek eh, da ngay jàng saaru gàtt da nga naan rek fii jii di xaa xablun min masadin rek daal di sujjóot bàyyi ko boobu de jàpp naa ko moom fii jii di xaa moom naa jàpp mu ngi ko rakkat ñaareel nga jàngi Fatiha ba pare nga jàng xaaf rek nga ne xaaf rek daal jàpp naa ko ñu dem ba àjjuma ji jot saaru ñoom suñu Abdou Guèye yi taxaw yéene ko lool daal ni bàyyi ko rek day jéem a jiite mu kàbbar jàng faatiya suñ jàngee faatiya gaa yëpp ni amin amin ju xumb di xaar mu jàngu saar mu taxaw taxaw xalaat daan ni fii onuqiha xam nga jiit mooy mooy baat mooy mooy loos tamit ci arab mooy loos ba tey léegi xamatut baat bi ma ni fii onuqiha xablun temps yi daan ni subhaanallah ñoom ñëpp yuuxoondoo ngir sawar ci ñu ni ko rukkool benn yoon mu rukkoo ñëw ci rakka ñaareel jàngi faatiya ak si ci ah, wala daalin ñëpp ni amiin ci kaw mu xalaat xaar daal ne xi ñu ne ko subhanallah mu ni ne ko subhanallah mu ni xu ñu ko xay mu ni ah benn la ci mën a doon nag <laughs> fekk xaaf lañ ko waxoon kon loolu dalul ji jàkka kon ndax ki fi nekk imaam la borom xam-xam la eh, ku ñu doyloo ci xam-xamam mën nañ ko taskiya wala nuzakki ala allahi ahadan ñu ngi ñaan suñu borom def fi barke te def fi tawfiq wa axiru daawaana alhamdulilahi rabbi wasalaamu aleykum toogal rek imaam bala ngaa bala dem eh, am na solo lool am na solo lool am na solo lool macha allah ñu ngi sant bu baax a baax na gàtt na waaye eh, ni mu gàttee la làmboo yàlla moom bu la fasaxa may na rek yàlla bu mu dëñ yàlla def la mag yàlla liw saalum saalum di wax def am ñam yàlla la mag mu am barke ba yi nga dond ci baay ak maam yi yëpp nga mën koo dondale doom yeeg sët yi ànd ak wér ànd ak taxawaay ànd ak barke ànd ak lépp rek waaw bég nañ lool yàlla na ko yàlla defal bég nañ lool wax dëgg yàlla kon nag ah benn minute sëñ Soogi nga joxe kàddu président jox Chérif Chérif mu mu mu yeggati ñu ñaan asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakaatu xam naa ne man euh, suma wax du ci bari ndax manuma nekk suma diggante ñaari imaam ak suma shérif yam lu may wax waaw ah, dëgg-dëgg lu dul li ma président wax ne mu ngi gërëm ñëpp ku fi dëkk ak ku fi dëkkul ci île bi nee na gis na toogaay bi ni mu mel nee na gis na fi gan yoo xam ne nii suñu leen a gis ci île bi tamit loolu président association bi wax imaam ñu ngi lay gërëm di la sant tamit ndax liggéey bii ñoo ko bokk mbay dond toujours mu fàttali ma ko mbay dond mi toujours mu fàttali ma ko jamono bu ñu gisee rek mu tudde sa tur bi moo tax euh, imaam nee na euh, président nee mu ngi gërëm jigéen ñi il bi gis nañu li ñu def gis nañu li ñu taxawoo imaam tamit xale yi ñëw nañu mag nañ ñëw nañu bàyyi euh, bàyyi tamsiir waaw suñu nijaay suñu lépp imaam euh, président nee na mu ngi lay ziyaara di la gërëm ñu ngi baalu àq ñëpp nag ndax dëkk bi tooy na tey sedd na te lii lii rek la jullit mënal moroom ma mu xewle mu fekk si ko surtout bu mel nii imaam si siraatal mustaqim euh, sama shérif nag mooy mooy suma waay mooy suma euh, waaw dama dama dama far léegi dama koy bañ a wax waaye foog ma wax ko ci kaw mbooloo mi dégg ko maa ngi yow nag waaw allah mënu ma wax lu bari na sama lépp ngi ci yow sama lépp ngi ci yow imaam jërëjëf ci taxawaay bi ak ci xamante bi incha allahu dinañ fa ñëw dinañ fa ànd ak suñu imaam ànd ak président incha rabbi ñëw fa ziara la waaw dinañu ko def incha allahu dinañ ko def ñoo la ko dig te ko def Chérif bismillah nañu am ay imaame xale wala imaami ndaw yàlla def ñoom ñëpp ñu bari xam-xam kaar te tamit ñoom ñépp liy jubal àdduna moo nekk seen diggante mooy ñu bëggante ngir yàlla loolu daf ñu tàrdeloon ku nekk di fiir keneen ki ku nekk di xatal keneen ki ku wax benn baat keneen ki toog ci mbooloo nekk nekkale amul xam-xam waaye ñii dafa mel ni li yonent bi salaa sallam bëggoon ci xeetam ñoom commencé nañ ko di ko dox parce que démb déglu naa sëñ Xaadim Buso xam-xamam leer na ñii ñépp nag dañuy ñaan ñu ñaanal leen ndax ay xale yu ndaw ñoo xam ne dañ waroon a nekk ci leneen waroon a ut àdduna waaye bàyyi lépp jublu ci yàlla ak yonentam sallallahu alayhi wa waaye dafa am loo xam ne sama sëriñ Mouhamed Mountaga Sakho dama gis ne dafa commencé xëcc imaam Moustapha Diop te kooku moom nanguma ko bokk ak kenn waaye imam lu rafet la nga xewle nga mun a wax lépp nga tànn imam Moustapha Diop mu ñëw présente àdduna bi yëpp sëñ Xaadim Bousso yegg si nga ne ko lu mu gàtt gàtt foog nga sànni si kàddu lii nañ ko saxoo diine dafa yaatu yàlla dafa yaatu yonent bi salaa dafa yaatu ndege kenn bu mu ko xatal kër goo dugg na nekk sa kër liggéey bii nag yàlla nañu ko yàlla jàppal nit buy wax ci soppeem duñ ko nangu ndax loo wax dañuy wax ne danga ko bëgg boo bëggee nit loo wax ci moom duñ ko nangu dafa mel ni ñetti mbir nit du ko nangu sa mboni doom doo ko nangu sa baaxi wujju doo ko nangu sa maqaama jëkkër doo ko nangu <laughs> ñetti yii nit du ko nangu koo sopp tamit loo wax ci moom duñ ko nangu ndax danga ko bëgg waaye imaam comme que moom moo xewle tey yàlla def mu nekk xale walla mu nekk ndaw dafa nekkoon ci karaté mu jël ceinture noire mu bàyyi loolu mu nekk ci commerce Alaaji Saaxo mu am lu nekk mu bàyyi loolu ñëw ubbi jàkka moom dong mu taxaw mu am ñag ñu ko dimbale ñu mel nii ba jàkka ji taxaw mbooloo dinañ taxaw pour taxawal lu mel ni duñ ko mën moom mu taxaw ba yàlla dimbale ko lii taxaw ndeke ñun ñëpp war nañ ci jàpp ñun ñëpp war nañ ko ñaanal tamit ñu ñaanal suñu imaam yi imaam xaadim fexe leen ngeen booloo fexe leen ñëpp nekk benn fexe leen ñëpp ànd ci ànd bu rafet ñëpp nañ bokk ndey ñëpp nañ bokk bàyyi ñun ñi nekk ci gannaaw loolu lañ soxla ci yéen bu ngeen melee noonu jàmm am waaye bu ngeen bëggee boddante ak fiirante ak weddante day métti yàlla nañu yàlla defal jàmm te yàlla def jumaa ji ñu jënd ko ci barke yonent bi sallallahu alayhi sallam yàlla defal leen jàmm